chers internautes yu enquête 221 dal leen jàmm dal leen jàmm ci li gën a fës ci at yëglekaay yi ñu commencé koog le témoin mooy yi mi dellu soit ci ëttu ko teg ko ci table bi lépp ngir waajal mandat bi nga xamante ni mu koy sàkku yéenekaay bi dañu xam alal gi ni mel nag ñoo ngi ko jébbal benn cabinet américain boo xam ne mission am nekkul lenn lu dul rek waajal président Macky mii ba ni ñu fexe ba 2024 naa di nekk candidat ngir mën a bokk yi nga xamante ni fi mu toll di élection législative yi bakkanam la ci teg yéenekaay bi ñu xamante ne boo ci boolee tournée économique bi nga xamante ni moo ngi koy def ak accélération inauguration yi da jàpp ne président Macky Sall mii dafa ñëw jàppale si waa Benno Bokk Yaakaar yéenekaay bi ñu xamante ne fi toll nii la ca dëgg moo di xanaa Benno Bokk Yaakaar amuñu ay kàngam yu mën a xeexal seen bopp ba président Macky Sall di wàcc ci terrain bii di leen jàppale ci xeex bii en ci Ndakaaru Njaay moom xeex bu

xew démb ci daanu Fuuta moom tiital na waayi weskan bi ndax booy xool meeting ba fa Benno Bokk Yaakaar def dafa fees dell bay tuuru yéenekaay bi dañu xamal ne ñeenti fan ngi nii bu ba léegi gisuñu waayi weskan bi waaye nag ñu leen di xaar ni ki ak suba gii ñu commencé seeni caravane enquête yéenekaay ne Yewwi bi kay bu jëloon élection législative yi Ousmane Sonko dana mujjee dugg ci biir gouvernement bi yéenekaay bi def taxaw seetlu ci liste nationale bi nga xamante ne amoon na problème teewul Ousmane Sonko ni ki démb mu ngi xamle ne dana wàcc ci terrain bii def campagne comme ñëpp yéenekaay bi du ñu xam ne Ousmane Sonko kay li mu wax leer na ñu nekkoon ci biir liste nationale bi yëpp danañ wàcc ci terrain bi jàpp leen ne boo leen votelee Yewwi bi ñun ñii ngeen ko voteel Ousmane Sonko profité ci occasion bi wax ci kaw Pape Mamadou Seck di waa ji nga xamante ne nii nee nañu yooyu yaay législative moom mandataire benn bokk yaakaar bi di xam ci biir yéenekaay bi ne fi mu toll nii amatul benn bokk yaakaar mujjee naa gagné élection yi li ni mel na ku gumbawul yaa ngi koy gis ci terrain bi ci jamono boobu moom Yewwi Askan bi Serigne Mansour Sy Djamil mujjee cee génn yéenekaay bi def taxaw seetlu ci lan moo waral ci dëgg-dëgg Serigne Mansour Sy Djamil mii daal génn Yewwi bi ba noppi daal sàkku ci ay militant bu kenn votel Yewwi ginnaaw te li li mel nag day firndeel dëgg rek ne président Macky Sall amul vision économique naka lañ mën a nekkee ci benn gox goo xamante ne ni am na or am bijoutier te mënuñu muusi ko wànne ba doxal dëkk boobu lii nag moo jar a laajte Cheikhna Alassane Sall di xam ne ci biir yéenekaay bi ne il faut que ñu changé ñi nga xamante ni ñoom lañ jox suñu réew mi lu ko mooy Sénégal gi dana suux te méritoowul li ni mel direct news moom dellusiwaat ci disparition Pape Mamadou yi ñuy jot tey ji ñuy wax ak seen doom ji dafa génn àdduna waaw wala déet ñoom famille Pape Mamadou Seck di xam ne ni Pape Mamadou Seck nekkul kuy def lu bon te nekkul nit ku bon rendi xaru tabaski sax laa la wax daawu ko def kon nag bu ñu déggee ñu koy jiñ yenn yi lu ñuy jaaxal lay doon l'observateur moom des ci dossier force spéciale yi nga xamante ni nii fan yi la génn jàppoon nañ ci Amidia waaye niki démb moom ak ay avocat am jàkkaarloo nañ enquêteurs yi moom Amidia di xam ne ci biir yéenekaay bi ne dëgg la envoyé xaalis bu takku nag Mor Gueye ñu gën ko mi dëggal la ci biir yéenikaay bi ne force spéciale bii am na te moom Amy Dia def na ay révélation ci Pape Ousseynou ak Ousseynou Seck ñu gën ko miin ci Akhenaton la mu détaillé ci audition bii lépp nga ci biir yéenikaay bi La Tribune yéenikaay bi koy mujjee naa bi mu defoon lan moo tax président Macky Sall opposé ci jàkkaarloo gi nga xamante ni Ousmane Sonko doon na ko def ak Embalo yéenikaay bi def ay révélation bu rëy ci jàkkaarloo bi nga xamante ni Ousmane Sonko defoon na ko Embalo li ñu ci war a xam lépp gi ci biir yéenekaay bi la Libération yéenekaay di ñu nettali moom mbir bu doy waar ci quartier Daaru Salaam ca diwaanu Thiès benn soxna boo xamante ne nii daal amul lu dul fanweeri at moo ëmb ba am doom jël doom ji na mu tooyee amul lu dul ñetti fan mu dugal ko ci benn sac plastique sànni ko ci benn bâtiment nii la xale bi jaaree ñàkk bakkanam waaye moom soxna si sant ñes bi ñu ko laajee lan moo tax nga def jëf ji lim xam le moo di sama copain xarit ci ma lii ci boppam mooy gàtte ci man moo tax amu woon beneen solution lu dul bi ndax sama copine bi bés bu xamoon nag copain moo suñu diggante foofu lay jaaree ñaaw abadan <laughs> xalaatoo suñu borom ci li nga def xanaa di xalaat sa morom baax na nañu seetaan rek ñu yendoo ak jàmm ba suba ak jàmm incha allah